damay wax ni buñ nee ana si siitub daaba boo dee si tët tët tët siit ba baaxul jigéen boo fàttewul la nga ca defan baaxul aha téyeg ndawtal ku mu tax nga raw sang maas boo saatloroo ñu dab la aha kuy def teg bu nekk nga teg ca nag di nga yàgg seen mbedd teg gi te la tax teg gi mbedd ma teg baa la ko de kuy def teg bu nekk nga teg ca nag di nga yàgg seen mbedd teg gi te la tax nga teg gi mbedd ma teg baa la ko yóbbe aha nit ki ngërëm ñett la ngërëm ñett la bu njëkk bi mooy ban nit ki da nga koy gërëm ngir jikko ju baax ju ma nekkee ak yow bi ci topp wala nga gërëm ko ngir ndigal lu baax lu mu lay digal muy sa njariñ muy sa njariñ bi ko ñetteel wala nga gërëm nit ki ngir teraanga ju mu lay jox muy tegu ci say loxo ñetti ngërëm yooyu am te it ñett la xaste ñett la bu njëkk bi nit ki danga koy xas ci deram bi ci topp wala nga xas ko ci deretam bi ci topp wala nga xas ko ci alali boppam bala ngaa xas nit nag ci alali boppam seetal ba xam yow loo ko mës a jox dégguma la de bala ngaa xas nit nag ci alali boppam seetal ba xam yow loo ko mës a jox soo ko mës a jox dara loo ko wax ci yow la ne waaye nekkul ci moom nga ni ko soo ko mës a jox dara loo ko wax ci yow la ne waaye nekkul ci moom aha li ëpp ci nit ñi nag damay wax ni sa taat kër yi ku la féete ginnaaw a koy wax mu ni sa taat kër yi ku la féete ginnaaw a koy wax kon kooku yaa ko jiitu aha jàpp jàmbur di ko xas te ki ngay xas boo tëddee ba guddi ñu yàlla nga jóg diju ñun la bu baa nga mel ni moom nga yàkkamti bët set ndax nga mel ni moom loo ko waxal ci yow la ne waaye nekkul ci moom. Sëriñ Maxtaar Sekk mbooroo waxaat ko. te ki ngay xas boo tëddee ba guddi ñu yàlla nga jóg diju ñun la bu subaa nga mel ni moom nga yàkkamti bët set ndax mel ni moom. loo ko waxal ci yow la ne waaye nekkul ci moom. sëñ Maxtaar Sekk Mbooro. bala ngaa xas sa yi bopp ji nga jur. bala ngaa xas sa yi bopp ji nga jur. yow mi baayam war ngaa seet ba xam doom jooju noo takkee ndeyam. wala nga seet ba xam yow mi baayam loole loo lebalan sa baay. wala yow mi baayam nga seet ba xam doom ji ni mu mel ak sa jëf ja nga weesu nu ñu mel ndax am na doom yoo xam ni bonuñu dañuy fay bor. mu ni. ndax am na doom yoo xam ni. bonuñu dañuy fay bor. sama xel dem ci wax ji nga xam ne soxna Zeynab Fall daan na ko wax yàlla na ko yàlla yërëm. daana faral di wax naan. doom yu bari ñu ngi fay bor bu ñu lebul woon. ndeysaan. doom bu gàddaayee baayam ànd ak ndeyam dëkk bu mu jëm dana ko jub waaye du caag. mu ni. doom bu gàddaayee bàyyam ànd ak ndeyam dëkk bi mu jëm dana ko jub waaye du caag kon boo meree ba jompal ku la jëkk jëkka wommat war ngaa ànd ak moom te di ko déglu ndax boo meree faje koy wax soo noppee am ngàcce nga mer faje ko muñ mu suppi ko njëndi nga dëkke ko sëriñ Maxtaar Sekk Mbooro alxuraan nee na muñkat boo gis sant lay mujje nga mer faje faje ko jëf fa saasa mu suppi la ko gaynde fàdd la mu ni nga mer faje faje ko jëf fa saasa mu suppi ko gaynde fàdd la moo tax gëleemuk tukkal gu sa baay yerul ndaw luy waaxu ji ko ñuuxu say waajur dafa nekkul mbaa ku la bëgg. wante boo aawaloob dof ñaareelam yambar ñetteelam texit dëkk boo nekk bu ñuy àtte sa kër la ñuy ñëw. <laughs> sëriñ Matar Seck Mboro nga ni ko. boo aawaloob dof ñaareelam yambar ñetteelam texit dëkk boo nekk bu ñuy àtte sa kër la ñuy ñëw. te koo gën kër fop mooy ñëw di jàngal noo war a yore sa kër. te jigéen ju bon defal ko lu baax ak rëdd géeje yem loo weesu jeex na. mu ni. te jigéen ju bon defal ko lu baax ak rëdd géeje yem loo weesu jeex na. soo ko defalee lu baax ba yaakaar ne li nga def dina la ko bëgg moom bu toogee sa ëtt bay waxtaan li la war te defoo ko dong moom lay wax. te jël jabar joxe jabar tuddee doom ku ko dugal foo ko warut a dugal soo ko réccuwul sa fan daa guddul. ndax damay wax ne xarum tudd mu la nit may. wala xaftaan bu la nit may. ku mu tax nga tuddee nit sa doom. su ngeen guddee fan ci def woon naa dooma def nii lay mujj ah sëñ Makhtar Seck Mboro man de lii ngay wax ni gis naa ko fii ci Ndakaaru ak li ko wër da ngay gis koo xam ne ka mu tuddee doomam alali àddina rek a tax waaye ci biir mbokkam ku fa gën fuuf ka muy tuddee doom jaa nga fa waaye alali àddina moo tas jamono ji tey sëriñ Makhtar sekk Mboro tey itam ab juddu bokk la ki médaille bu fa borom jëm ràngoo ko ndekon koo séen xam kataguré gam bokk aha sëriñ Makhtar Mboro bu bu ndey baaxee baay baax nag bu doom juddoo baax bu ndey dee sàcc baay di sàcc nag bu doom juddoo lu mu for mu mu ni bu ndey dee sàcc baay di sàcc nag bu doom juddoo lu mu for mu réer pourtant c'est vrai de ndax ñett a ngi ñoo xam ne kenn ku nekk dee nga yóbbaale gàcce bàyyi gàcc ci àddina muy ñetti ñan sëriñ Maxtaar Sekk mbooroo ki tëdd ba guddi mu fekk jigéeni jàmbur ji mu tëkkul fas yéene joteeg moom ñu fekk ko fa rey ko dee na bàyyi gàcce fii ci àddina yóbbaale na gàcce àllaaxira ki ci des sëriñ Maxtaar Sekk Mbooro ki tëdd ba guddi mu dem ni cas alali jàmbur parce que yéene sàcc yóbbu ko ñu fekk ko fa rey ko dee na bàyyi gàcce fii ci àddina yóbbaale na gàcce àllaaxira aha ñetteel bi ci des sëriñ Maxtaar Sekk Mbooro jigéen ji njaaloo ba ëmb ba ab ëmb topp ko ca mu doon wësin far ca dee na bàyyi na gàcce fii ci àddina yóbbaale na gàcce àllaaxira ndeysaan di ñett yu ama am solo yu mat a bàyyi xel te njaaloo bànneex bu dul wàccub lal la jërul gàcce àllaaxira njaaloo lu mu neex neex bul wàccub lal de ba wàccee jeena jigéen ju nekk am nga sens interdit. sens interdit wu jigéen. Serigne Makhtar Seck Mboro. fan la nekk. sens interdit jigéen mu ngi ci diggante jumbux bi ak bëti woom yi. su ñàkkalee boppam fayda ba piti ndaanaan fiir ko nag tardé na. mu ni. su ñàkkalee boppam fayda ba piti ndaanaan fiir ko nag tardé na. ndax lu tax. ndax jigéen ju ñàkk fayda bu ñu ko yaree yar bu baax du ko gis su génnee piti ndaana na koy lëng ni ko bokkoo ci sien bi fi muy wutee bokkee ci sien bi nag fi la ñu koy seeyale mu ni mu ni au lieu kon mu ruux siiru siiroo koy ruux banque ca weya <laughs> la de au lieu kon mu ruux siiru siiroo koy ruux banque ca weya la muy ñàkkale boppam fayda nag aha day taq ci ponkal muy solub jiin ay misik di ko jiin muy naan biiñ su ko jàddee mu tëgg ko am jiin bàyyi ko muy biin kuy tooñ bi nopp lu koy fayu du am jàmm wallaay ndeysaan sëriñ Maxtaar ko yor mu ni ab sëy ku ko def ni leew soo toqee sànni ab sëy ab sëy ku ko def ni leew soo toqee sànni ab leew sëriñ Bàcc Fay lii sëriñ Maxtaar sekk Mbooro wax nag yow laay bàyyi nga tekkil ko waa groupe whatsapp numéro en 2 ba ci 3 muy ab sëy boo ko defee ni ab leew foo toqee sànni ko ab leew ci boppam laa bëgg nga tekkil ko gaañe après ab sëy dañu koy takk waaye kenn du ko def nib leew kenn du ko def nib leew jërë ngeen jëf mbokk yi tey jii lii lañ leen indiloon ànd ceeg sëriñ Maxtaar Sekk mbooroo di ko ñaanal bu baax yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljanna lii lañ leen indi loon tey di gërëm Baye Assane Mesre di leen jox dig daje ci beneen waxtaan